yàlla xam na ne bu ñuy laaj xam nga sunu réew dafa ñu am problème mu gouvernance mm. réewu Afrique yi la de façon globale c'est-à-dire que président de la République ci boppam 2012 ba tey Macky Sall bokk na ci li muy gën a jàmbat mooy réforme administration mm. te justement recommandation yi rapport yi def yëpp mais ci réforme yooyu ci la jëm parce lu ci bari soit sunu législateur bi moo moo évoluer wu moo moo moo toppul ni rythme bi di doxee wala soit ñu am ci mbir yoo xamante ni nañ ko doon yore ak léegi niñ ko war a yore dafay wuute ndax léegi exigence bi am ak léegi euh, transparence bi nga xamante ni dañu soxla mu nekk euh, une une une une réalité yooyu yëpp dafay tax rapport yi def ci donc boo gisee ñu doon ko laaj mooy déjà dafa am ñoo xamante ni dañoo jàngi xaraña loolu def ay concours yu métti pour ñoo yóbbu leen ci kuréel yooyu mais boo leen fa yóbboo ba pare di leen fay xaalis mais liggéey bi nga leen sant nag foog ñu def ko ñoom sax loolu la bëgg. Mm-hmm. mais euh, Cour des comptes effectivement ay ay ay borom xam-xam ñoo fa nekk ñu bëgg Sénégal ñoo fa nekk IGE kazalika yeneen yeneen yeneen instance yooyu yëpp institution yooyu yëpp loolu moo fa nekk mais encore une fois. lii doy waar te nga xamante ni moom mooy xaw a indi njàqare si si kii mooy finalité bi nga xamante ni rapport yooyu dina ko am ba lu ñu duut baaraam ne lii baaxul kenn du yore nii bu rapport di génnati moom loolu dootul nekk une réalité mais keroog euh, bi ñu dalalee fii rapporteur général wax na ne euh, wax na génne na pourcentage bi nga xamante ni moom la ñu am ci exécution yi nga xamante ni ñoo ngi koy def ci recommandation yooyu mais am na ay poches de résistance yoo xamante ni aussi dafay nekk ay opportunités d'affaires pour certains nga xamante ni ñoom ñooy téye loolu téye ko foofu mu demee noonu dématérialisation bi ñuy wax ak yu bari ñuy wax c'est parce que ya des gens qui y trouvent leur compte. Hmm. y a des gens mais am na ci ñoo xam fi gis nga der pour man lu ne weng kenn du ko jeex. Hmm. am na xeetu enrichissement boo xamante ni dina am ci xeetu nit yu yor ay postes yoo xamante ni loolu jarul sax jeex. jarul jeex donc encore une fois pour man un rapport en soi jamono yële damay seetaan benn émission bu am solo ci benn télévision marocaine rapport bi nga xamante ni Cour des comptes génne woon na ko foofu li mu doon pointé du doigt c'était l'absentéisme dans l'administration boo bokk na ci li liñ ci gënoon a mhm. liñ ci gënoon a wax mhm. ñu ne léegi ñu évaluer sax perte bi nga xamante ni dina ko jural Maroc ak nan la ñuy def ba rek réglé ko donc encore une fois rapport yi recommandation yi dafay am solo trop hmm. yenn saa yi kenn épinglé wul kenn parce que ñi ciy wax amuñu euh, amuñu euh, sañ-sañu hmm. tëj wala tijji kenn hmm. en réalité mais li nga xamante ni moom ci ay recommandation nag wax dëgg fa yàlla mais foog ñu wax ko. Mm. am na ci loo xamante ni tamit honnêtement il faut que ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñooy yoon. def ci li nga xamante ni mm-hmm. moom lañ ci war a def mais encore une fois fondamentalement c'est l'administration sénégalaise qui doit être réformée en profondeur mm. président de la de la République Macky lu ne wax na ko ci ne réforme yi réforme yi réforme yi xaar na ko ba sonn réforme yi nag ñëwagul blocage yi fan la nekk je pense que loolu bu ñu ko trouver euh, cour des comptes bu ñëwatee beneen yoon problème yi du ko am mais problème mu moyen la ñu am déficit personnel. Mm-hmm. moyen financier yeeg lépp. siège sax amaguñu ko. Mm-hmm. bu pare. cinq cinq magistrats su ma juumul ñoo war a contrôler six cent soixante sept collectivités locales. Mm-hmm. c'est pas possible. donc obligation de résultat obligation de moyen ñoom aussi foog ñu jox leen moyen. pour alors Ablaye Cissé non non hmm? dama la ñaan da nga wax na la keroog sa télé bi yaakaar naa hmm. ñaata la waxoon. jàppatuma ko yaakaar naa pour ne soixante dix pour cent de. jàppatuma ko. Ah, d' accord alors loolu moom laa bëggoon xam c' est important. waaw xam ñu wax ko mu li ñuy bind def ko recommandation. li état bi exécuté. d'ailleurs rapporteur bi bëggoon nañ mu dellu si waat. Ah, voilà dafa dafa jàpp ci beneen. c' est important liggéey bi ñu jokkof moo. newul woon Dakar suñu borom sedd na dama ko fàtte. Ah, alors euh, lan moo tax ma koy bañ a wax non der il faut que ma préciser loolu. Mhm, mhm. bañu ma ko wax dama jàppatul taux bi mais li ma ci intéressé mooy. cest dire ñu jox la injonction ne la lii dindi ko nga am sañ-sañu ne du ma ko dindi man sama problème yëpp loolu la te loolu Macky Sall moo ko gën a naqarlu. Hmm. même bu doon toog hmm. c'est à 99 pour cent comme il dit c'est un vrai problème. alors ah bon? si c'est ça ah oui même si c'est à 99 exécuté ku ci bañ te waroo bañ birima. non doxul lool de. recommandation yi jox la chef de l' état. Mm. les non non waxuñu loolu de. Mm. waxuñu li ñu oh. jox recommandation yi duñ ko jox chef de l' état. recommandation yi nga xam ne moom la. cour des comptes di def. di def oui et que ñu koy exécuter ñu koy exécuter voilà. loolu yoonu mag loolu président nekkul. donc euh, commission bi président finalement convoqué. Hmm. ndax yaanu na maanaam est-ce qu'on a besoin d'une commission ni Pape Djibril wax pour euh, pour dérouler des recommandations waaw mmh. président dafa am ay artifices yoo xam ne mun nañu ko layal un temps mais mun nañu ko layal tout le temps. artifice yi mooy lan xam nga am na loo xam ne mun nañu ko ko nangul ci chaque fois argument bu muy avancé ci ne man maa bëgg yëf yi leer man maa créé nag mun nañ ko ko nangul décembre 2012 moom moo créé nag xam nga loolu souvent su ko waxee rek danaan sama yéene mooy transparence dox ci dëkk bi. Mmh. te loolu c'est artifice la boo xam ne saay bu ñu ko waxee naa ah comme moo créé li nga xam ne nii moo war a leeral xëy na ci loolu rek lay dox mais ñu jàpp ni li nga xam ne ni jaar na fi yëpp soxla parce que day débat bi du loolu du vraiment li fi jaar ci nag li nekk ci pénc bi mhm. ñu koy débattre di ci wax te gisuñ ci solution du loolu mais tey bu ñëwee tey ni commission buy exploiter rapport yi mhm. moom la ñuy taxawal xel day teey parce que dafay demaat ci ni maa taxawaloon loo xam ne bëgg naa ñu diligente ni ñuy exploiter rapport yi mm-hmm. te wax dëgg fa yàlla ñi ay magis au magistrat lañ yoo xam ne ne ñu ngi ci cour des comptes liggéey bi day jël temps ba gis nga ko mënuñoo def rapport chaque année gëm naa ni bu moyens doyoon rapport yi waruñu fee fekkante mm-hmm. ci réew muy dox normal at yi waruñu fee fekkante mën nañu bañ a sax entreprise publique yëpp parce que aussi on on n'a pas besoin de contrôler jël loo xam ne nii yenn nga ko ba mu mujj diis ba finalement amul benn efficacité bu fekkee ni kay li nga xam ne moom lañ am ci nit ci matériel ci logistique mhm, li mu yemoo ñu def ko loterie la ñu contrôler yi nga xam ne moom la ñu mhm. mais rapport yi at ba at fekkaat ko fi mhm. ba ñu naan ñaar ba ñetti at fekk ko fi du yoon léegi bu fekkee ni loolu matewul ci Cour des comptes nga bëgg a yokkaat ay institution parce que institution la bu ñuy créé waat commission boobu nga xam ne bu Cour des comptes defee moom ci boppam bu amul li fa war a dem nga doole commission bi ci boppam bu amul moyens yu doy pour exploiter li Cour des comptes def fu ñu jëm mm-hmm. Cour des comptes day empiler ba pare commission war a empiler waat exploitation bi pour def ay recommandation recommandation yi nag wax dëgg fa yàlla am na loo xam ne ku ko nangu yaa nangu ñu dox sa xel ku ñu ne exécuté nañu recommandation à 70 pour cent boo ko gëmee yow la engagé li ci penc mi ñu koy gis te c'est vrai am na loo xam ne jarul a jeex pasar pasare alal réew mi jarul a jeex dafa ne fàng maintenant bu ñu ñëwee nag ci rapport bi dëggantaan xam nga am na loo xam ne mën nañ ko wax nit ñi ñu dégg ko ne waxuñu président tëjal diw cour des comptes deful lool newu ko jàppal diw tëj ko ràpp même même s'il y a mais bu jox waaw mais bu joxoñee mhm. président sax wax na ko. Euh, euh, président sax waxal na ko boppam. oui c'est ça traduction devant la chambre budgétaire. président sax aussi. Euh, président sax justement les informations judiciaires voilà tuddal na ko boppam ne am na loo xam ne dina jar ñu jébbal ko yoon. mais xam nga xam nga li nit ñi di xaar aussi. Hmm. am na loo xam ne mesure conservatoire la. Hmm. parce que fii kenn gënu fi kenn ñi nga xam ne dañ leen jox responsable gëw ma sax Birima mi nga xam ne nii xëy na euh, moo faral nguur gi di layoon ñi nga xam ne dañ leen a joxoñ ne yorin bi <coughs> rafetul bokkewul ak ñi nga xam ne. nu ñu koy waxee recommandation ci ay erreur de procédure loolu dafay am ñàkk xereñ mën na dab ay nit ci seen i procédure mais loo xamante ni nii. lu bën la wala nga jël lu ëpp la nga waroon jëriñoo parce que nag rapport yi soxla xam nga xamante ne débat bi bu vraiment dugub ci rapport. mais ci exploitation bi mhm. la. c'est ça fi te loolu mesure conservatoire yi dañu ko doon xaar ci kilifa gi mais bu amul day mel ni dañoo sofantal organisme yi nga xam ne ñoo fi nekk di contrôler di ci liggéey. te xam nga li ci tey xel bu ñu weesoo bu cour de comptes bi président de la république adresse à la nation 31 décembre muy janoo ak journaliste yi. posé nañ ko question ci rapport yu OFNAC yi notamment dossier boo xam ne moo ne ci penc bi ne fi fàng président sañ cee yëkkati kàddu wax ci parce que munoon na ne rek mu ngi ci kanamu yoon duma ci wax muy bu kuut sañ ñoo jot lu nekk ci biir mais président bu ci waxee li mu ci wax dafa tey xel parce que président ci boppam moo ne moom li ko jaaxal ci liggéeyu OFNAC yéenewul maanaam parce que li ñu pointé ne Cheikh Oumar Anne dafa mobiliser quatre-vingt-six millions pour ak accueillir président di xaalis bu ñu saax saaxee président wax ci làmmiñam ne acte de gestion la boo xam ne conseil d'administration bi autorisé na ko kon loolu of nag amu ci yoon léegi kon réew mi conseil d'administration directeur bu mu autorisé mën nga def lu la neex te kenn du ci wax dara xam nga non mais si parce que gis-gis bu gàtt bi loolu la conseil d' bu dee autorisé na directeur bi mu saax saaxee suñu xaalis ceeb accueil président la def ci loo te te xam nga 86 millions yi daa mënul wax ba léegi fu ñu ko def mm. du question ni dugal nañ ko ci accueil bi réellement mm. mais dañuy wax ni génne nañu ko mais amul ay pièces yoo xam ne sax mën nañoo ne lii dañu ko loué nangam lii dañu ko te loolu moo bari même ci rapport cour des comptes bi mm-hmm. dañuy wax ni yu bëri amul ay pièces justificatives mm-hmm. est-ce que nit ñi mën nañoo yor alal réew mi di dépenser te du am ay pièces justificatives Birima loolu yow ci boppam mënuloo ko nangu exactement ci sa entreprise bopp mooy li nga wax même problème entre ni nga wax légalité ak euh, lu légitime xam nga. ne serait-ce que a un problème. dama lay leeral. waaw. <laughs> président parce que man de waxi président rek laa reprendre. non non non su ma juumee waaw mais bu ma wax loolu ma waxul laa bëgg a wax. waaw wax d'accord vas-y. dama da nga juum. maa ngi lay dégg et je confirme lu tax nga ni dafa juum. voilà de 1994. Hmm. ba bisu tey ah loolu je parle. je membre de conseil d' administration des centres des œuvres. Hmm. bu CROUS. kon xam naa ban prérogative le centre des œuvres am. CROUS wala CROUS. pas la même chose. waaw boo nee CROUS pas la même ah, chose. bu CROUS laa non boo bu Saint-Louis leneen. waaw waaw lan la. mais d' accord wax aussi lu am. waxal ba ma jox ah, d' accord lu am. pare na non mécanisme de fonctionnement yi waaw mais man nga ma may ma wax ba eggal même bu ma hmm. suñu prof da doon wax ni boo koy gàgganti après mais mën nga ko dama la jox cër déglu la quoi mais dama la jox cër lu bokk damaa ba jox la cër maa ngi lay dégg nga wax ba eggal dama lay ñaan nga mu jox ma cër ma wax ba eggal s'il te plaît waxal bu ma nee nekk lépp même ki lay vérifier hmm. su ñuy fekk conseil d'administration délibéré hmm. foog nga xam d'abord ñan ñooy conseil Coordination de Wakudu. Coordination, c'est les, c'est les facultés, mmh. les UFR, les professeurs, mmh. de, l'ensemble des, des, des facultés, mmh. des professeurs, des services extérieurs. Mm. Nous avons conseil d'administration, Koudou ou le course. Mm. C'est la même composition. ma ko ba dolli ko leneen. Mm. maay secteur général syndicat bi ëpp doole kudd ci parti ma naa ko jiite. kudd wala kurus. man maa jiite syndicat bi fi ëpp doole sama représentant sama premier adjoint Saliou Fall moom moo nekk ci conseil d'administration il est membre xam naa li may wax ah je crois war naa xam li may conseil d'administration bu voté délibéré mi ngi mel ni assemblée nationale délibéré un ministère ci benn ci benn rubrique na la défensé nii c'est légal c'est juridique kenn mënu la see topp kenn mënu see jàpp. mais loolu laa lay wax. dama ne li wax kenn mënu koo dindi. waaw laay wax teel laay wax li may li may risqué may dégg damay la bu conseil d'administration délibéré dañuy voté. Mm. étudiants yi dañ ci bokk. Mm. étudiants yi mm. le personnel est membre. bu ñu délibéré voté le directeur exécuté mu ko cee top wax la leneen la xew. li muy wax ni 86 milliards arrivé président ma bu. 86 millions 86 millions. arrivé président la. débat bi je crois du débat wu. coup de côte nga wax mooy mooy thème bi donc bëgg na tourner waaw même ma rek le cas du kuddu mhm. c'est spécial mhm. pourquoi du rek ma néewuma kii def na wala kii defut mais bu dee ci arrivé président bi dama dégg ni amul pièce justificative bu waneen ci million millions yi waa du ah, waa du ma rek waa dama ne dama ne la étudiants yi ñu joxoon amical yi ñu joxoon xaalis bi ñu mhm. may dégg télé laay wax damay dellu ku doon dañu kii tout le monde a signé wane ni jot naa xaalis bi. Birima gënoon légitime OFNAC nag pour wax ni amul mais OFNAC moomu ma. OFNAC la ñu gën a gëm sa wax franchement ça n'engage que toi c'est ton problème ma sama laa wax. oui que OFNAC nga gëmal gëmuma OFNAC. faut arrêter yow tamit dama jëstu cee Sénégal. sa kaddu val sa kaddu jarul kaddu OFNAC. c'est ton problème c'est ton organisme d'État je parle pas pour te convaincre. moo la gën a crédible nag. je parle pas pour te convaincre. waxi partisan nga wax. je parle état bi la fi nekkal. je parle li ma gëm laay wax. Hmm. ñoo gëm nga Nafi Ngom Keïta man gëw ma Nafi Ngom Keïta mm-hmm. man jàpp naa ne Nafi Ngom Keïta moo rey OFNAC da ko politiser mm-hmm. il a des ambitions des ambitions politiques oui Nafi Ngom Keïta a des ambitions politiques pour dëkk loolu dafa amoon que il était pressenti pour être candidat en 2019 man naa ko wax mm-hmm. c'est moi qui le dis ici à Jakaarlo. non nekkoon ci dëkk bi. waaw dama ni c'est ton problème man xam naa li may wax. donc yow li nga gëm ngay wax. mu munoo fexe ba institution bu nekkee ci réew mi bu bandu reex li mu xalaat li mu ci gëm kay mun koo tere c'est un moo wax li xalaat kay wax li ma xalaat maintenant bu su si transfert na lii la nag loolu lay nekk man sama xalaat laay wax nga sa xalaat sa xalaat wax na fi ngom kay te judduwul ndax du justice dafa wax rek teg ki àtte mooy yoon waxam judduwul sa wax judduwul sa wax judduwul benn wax judd ci réew mi mooy àttekaay yi. ñooy àtte loolu c'est pas mon problème waaw mais àttekaay yi la. mais àttekaay yi bu fekkee bu fekkee ni moom gëm na dem na ci. Mm-hmm. le procureur wax na ci dossier bi la ngeen bëgg ci. Mm-hmm. kon da nga naan soit gëwuma procureur bi moom day taxaw ne gëwuma procureur bi ma xam man nangul ko ko man nangul ko ko mais le procureur àddu na ci. waaw ma leeral le procureur moo njëkk dossier dafa non dëkk dossier bi c'est mal fait baaxul dama koy delloo of na loolu man waxuma ko procureur de la République Sénégal moo ko wax ni dossier bi ñu ma envoyé wax wax grief yi ci nekk di tax baaxul wax nañu ci d'accord wax ne sur la base de ce dossier yoon mooy ko topp ci waa kenn da koy delloo of naag li may xëy Sénégal may déglu bët ak bët c'est devant tous les Sénégalais que le procureur maintenant ñaar mën na nekk na naa ko nangul moom mu gëm wala mu bañ a bokk procureur mais le procureur mu ne dossier bi baaxul da ko dellu OFNAC. teggaguñu woon foofu. xam nga ah, fi ñu nekkoon mooy.